voilà donc bu ñëwaatee aussi si Abo Xasaayit mu Xadim Gueye nga xam ne moom moo nekk page Facebook bi euh, nekk na jëmm joo xam ne aussi day liggéey si xasaayit yi ànd ko ak ki nga xam ne mooy Serigne Xadim Gueye xasaayit ndeysaan si liggéey liggéey bu doy ndax bi ñuy door a débuté c'était en 2011 je crois que nous sommes les premières euh, ñuy jël ay jàng di ko dugal si Facebook à chaque fois que Xadim jàng fen ñu jël ko publier ko te yàlla def na tey ba ñu bëri ñu ngi si roy si jàngat yëpp ndeysaan mu nekk lu am solo taxul ñu yem foofu ndax nit ki bu lay si benn mbir dem ba ñëpp ñëw da ngay da changé waat idée nga demaat xoolal leneen yàlla def aussi ñuy liggéey ba tey yàlla dimbal nañu ñu ubbiwaat euh, benn chaîne YouTube ñu koy wax Alxassida TV Alxassida TV nag Euh, c'est la chaîne YouTube de Serigne Khadim Gueye ah dinañu permettre aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ak partout dans le monde ñuy bëgg di suivre euh, ay njàngum Serigne Khadim Gueye bu ñu demee YouTube tapé Al Khassida TV dina leen indil la chaîne YouTube de Serigne Khadim Gueye et dina la permetre aussi nga suivre njàng yi nga xam ne mi ngi koy jàng ci dëkk yi ay partout dans le monde nga koy suivre en actualité voilà loolu moo tax tey jii ñu bàyyi Facebook bi dem maintenant ci YouTube bi di ko publier di di ko partager ci Facebook mbooloo mi yëpp. ñi nga xam ne ay soppe sëñ xarit nga yëpp mën see mën see jot mu nekk liggéey bu am solo mu nekk liggéey boo xam ne durant lu yàgg ñi ngi siy liggéey yaa aussi li nga xam ne ay dalaton yoo xam ne aussi ñi ngi siy liggéey ah, xam naa fan yu néew dina génn ngir ah, soppee sañ xarit nga yëpp di mën di wuyoo ah, son sëñ xarit nga en attente mu nekk aussi lu am solo loo xam ne mu ngi si liggéey bi ak yen ak yéen yoo xam ne te jii formé nañ groupe de communication boo xam ne ku si mel ne sëñ Xaadim Seen ñëw na dema ma jàppale euh, soxna Zeyna Bamba bu DTV ñëw na aussi di ma jàppale ak ku ñuy wax suñu Mourtala aussi ñëw na di ma jàppale si liggéey bi kon dañ si am satisfaction bu baax a baax a baax a baax di wax wax gars yi ak soppe yëpp ne ñu waajal incha allah ñi ngi préparé yu am solo ngir dëgtal ko soppe yëpp incha allahu rabbi ah, ginnaaw lool nag ñi ngi sant mbooloom yëpp ñi ngi sant ñi nga xam ne teew nañ tey si bis suñu ak sasam bi yëpp ah, plus particulièrement à la chaîne bi nga xam ne moom mooy ah, chaîne Touba Argentine di sant bu baax aussi sëñ Gora Seck Euh, si yaatal bi wax dëgg yàlla am na solo lool ñu ngi ko si ñaanal bu baax ci bàkki sëñ Tuubaa xasaay di mu may ko fan wu ak wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ ci bis bi yëpp ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen jox seen wàccuwaay tey jii soo xoolee bis bi ñëpp kuy jàng képp kuy jànkat rek ñëw nga yaa nga gis ni suñ ginnaaw sëñ Abdoulaye Seck mi ngi fii sëñ Bàccu Diop sëñ Xadim Kebe euh, sëñ Abdoulaye Diouf euh, sëñ Massamba bu Thiès Euh, Mor Massamba bu Thiès ñoom ñëpp ñu ngi fi ndeysaan mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ne tey jii képp ku jànkot xasida rek ñëw nga wuy sëñ ak sa samp donc bu nekk lu am solo ñu ngi leen si ñaanal bu baax ñu ngi leen si jaayefal bu baax aussi di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sëñ Tuubaa di sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal yàlla yàlla xara leen àjjana bi jaay Xaadim Rasuul jërë ngeen jëf